Cheikh Modou Moustapha Mbacké moom ba mu dee naan gaaram waay la falu dexe beesu gaaram ay Moustapha man bu ma naa bañ a tey nangu naa ñëw naa fi yow Cheikh Moustapha way naa fi yow ndeysaan jégal ma nag yow Moustapha Cheikh Moustapha Mbacké yow sa walu yaay dul len fa bañ am ngeen fa ndam te sa wàllu baay du leen fa xasuwaay lii mooy médaay Cheikh Moustapha Mbacké ku sopp serigne modou Moustapha Mbacké ku sopp serigne modou Moustapha Mbacké serigne mbacke soxna lo morom mom yombul gayna borom tayef ay ma nga tayef way gayna ga ngay nalaw ay mbacke soxna lo borom tayef ku sopp Cheikh Moussa wa mbacke Cheikh Moussa wa mbacke Cheikh Moussa wa Cheikh Moussa wa Cheikh Moussa wa limam du jeex loo ñaan demal ca moom mu may la Cheikh Modou Moustapha mi moo bari ngor balay sa Cheikh Modou Moustapha mi moo indi ray bi moo fi def jumaa moo indi Cheikh Bamba ca biir mooy waaja Cheikh Moustapha yaa dib dorom bace balla aysa siguruso nedda gumba nga jaysa cheikh musawa adi dono cheikh mbake balla aysa siguruso nedda gumba nga jaysa mbake ñu ngi jéglu bu baax tuubal ñu ngi tuubal ñëpp di wax ni nu ko waxee léegi sëñ xaadim mii li ma njëkk a def bi ma ñëwee dama ko ne maa ngi sant yàlla ndax ni ma yàlla booleeg moom tey yàlla dogal mooy doog a ñëw ci bisam bi waaye nag cant koo gis seex aadama daam fa ko yàlla jaare mi ngi ko jaare ci alaaji seex ka mu baax mii alaaji seex ka mu baax mii ba ma ñëwee ci délégation bi bokk ci man ak sëriñ Modou Mbaye Sam mi ak soxna maam jaara mais ak Serigne Fall xaside mii alaaji Cheikh Ka bu baax mii rek sëñ Modou moo waral loolu ndax moom jikko la Serigne Modou bu sa jëng waxoon soxna awa soxna awa gajaga na ko yoroo sa puso di ñëw rek Cheikh Abdoulaye astafurlah Cheikh Abdoulaye Lahat moo noonu soxna awa gajaga awa gajaga mu ne ko mbàkk mu ne ko yoroo sa puso di ñëw rek ku yor di ñëw day lu yàqu nga defal ko yàlla du la gàcceel mukk waaye alaaji Cheikh Ka foofu la féete